asalaamaaleykum mbokku internet Dakar Midi ñëmati mbégte kontaan nee naa tey ñu ngi dalal ki nga xamante ne tey mooy Mbaye Sapar Sapar euh, heure ñu dalaloon nga xamante ne mooy Mak TV tey yàlla ñu dalal ko fi tey ah, mooy Dakar Sapar Sapar ñu fas tey waxtaan moom tuuti si actualité ak tuuti jëm si nga mooy màggal gi dañuy waxtaan tamit Mbaye Sapar Sapar si te moom ak si siñ Saliou cuun dañ ci waxtaan moom tamit lu bare bare loo xamante ne actuellement bi ngi xew tamit si jamono ji ngi bàyyi mu présenté ko mbokku internet ñu fii ci waaw asalaamaaleykum abu noo ngi lay siyaare baax mm-hmm. di siyaare waa Dakar di gépp mm-hmm. ah nit ku baax moom ko muy Cheikh Alassane Sène mm-hmm. bëgg yonente bi ñoo ngi koy siyaare baax di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal lim bëgg ci seen bi yàlla na ci am lu kawe njortoom ba doon ay tele yu mag ci biir réew mi ndax kooku ah nit la koo xam ku bëgg yonente bi la ba pare di def social ndax nopp amut kibeer li muy jëf lépp mi ngi egsi ci man kon ñoo ngi koy nanal gudd fan ko wér di siyaare bërëb bii nga ma fekk mm-hmm. Serigne Saliou Seck Raya mm-hmm. muy sama xarit di sama mag mm-hmm. nga xam ne heure boo ñëwee dakaar fii laay wàcc ci moom ci néegam bi fi laay dal man duma dal fenn fudut ci moom ndax danoo bokk jëmuwaay muy Serigne Touba di siyaare Mor Gueye mi fi nekk moom it muy ko baax nga xam ne man fii daal mooy sama daluwaay di siyaare soxnaam su baax see maam jaara moom itam muy sunu soxna su baax soo xam ni ba ñëwee ba léegi ndeysaan berne yi lépp ba ngi dàqante te du day ànd ak kanam gu laab kanam gu bég mm. kon ñoo ngi leen di siyaare yi yéen waa Dakar Midi gépp dëgg la jërëjëf Mbaye heure yi moom bu rek ñu mm. nekk si wi nga xamante ne mooy weeru safar wi mm-hmm. tey euh, taxawaayu bay safar safar ak taxawaayu murit yi tamit ci li nga xamante ne tey mooy fële sa Touba ak Dakar jaay gi tey gis nañ jamono démb ak tey Sénégal ñëpp yëngu nañ bay mm-hmm, mm-hmm. tey lan moo tey ban yëg nga am lan ngay yëg waaw mbégte boo gisee ni ma toogee man bu safar duggee rek sama mbégte da yokk ndax ñun amuñu dara lu dul màggalu Tuubaa nga xam ne Serigne Touba mu ne koo xam ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la dee ma sant la yàlla te ñun mbégum Serigne Touba rekk la ñu wër moo waral bu safar jubsee ñun dañuy bég barke Seexul Xadim mbégte moom nga nu fekke nii ñu toog barke Serigne Touba. Hmm. Ah. dan nga wax say wax de toujours maam raakam raakam gi commencé dina. waaw <laughs> raakam raakam ja raakam raakam ja tàmbali na ak dara dara ja ndax bàyyi faale fi mu ne ca mbale ma. dëgg la man kay li ma nekk Ndakaaru ma metti <laughs> waaye xelaf xelaf ja bàyyi faale tàmbali nañ ko. Hmm. barke Serigne Touba mbale ma jàpp na. Hmm. ñuy ngacc ndox ma ak Mm-hmm. tubaarkàlla ngir waajal màggaluk Serigne Touba gi fas yéene dalal gane Serigne Touba yi mm-hmm. loolu ci lan toll fi ne dëgg la heure bi daaw am nañu taxoon ni demuñu Touba mais ren dafa mel ñu yëpp takk nañ pour wuti wuti de ma ne <laughs> abu Touba moom mm-hmm. jekke dem jekke di ko dem sunu bàyyi Ablaye Mbaye peexa ko wax muy wax ju riis jekke dem jekke di dem jekkali ko dem boo jekkee dem boo jekkul murid yi waajal la nga dem boo jekkali ko ñu suuli la Touba. ñun Touba rek. Mhm. waaw keroog gis nañu li nga xamante mooy journée journée xasida bi. waaw mu ngi leen màggal Touba. waaw lancement. déggoo ma ne lancement lancement lancement. Mhm. lancement màggal gi mhm. màggal daaru Xudus moom itam ñëw jekkali yëf yi. màggal gu màgg bu ñëwee moom day lare moom moom day lare moom mooy lare yi. mooy lare yi waaw. <laughs> dëgg la ñu gis li nga xam ne ba fi mbas mi ñëwee sëñ Mountakha li mu def ci li nga xam ne mooy dimbali askan wi. Mhm. mbënd mi ñëwaat tamit. Mhm. c'est la même chose. Mhm. comme mun nañu que ni ko Papa Iran Ndao di waxee. nañ bu ñu doon joxe meer la ne. ci at bi sëñ Mountakha lañ koy jox parce que dimbali na doomu adama jamono ji bi nga xamante ni kenn jaaxleetu parce que ku jaaxle. ba si waa Kër Massar ñoom mbënd mi de national sax. actuellement sëñ Mountakha lañ lañ yaakaar pour ñu dimbali leen ci. dégg nga li ma la wax sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér kooku xaarut daray gouvernement moom lu xew balaa gouvernement def dara moom mu dimbali te du ko yemale ci murid yi rek mënoon na ne man xalifa général de murid laa waaye du ko yemale ci murid yi mbiram day law ba fépp kon ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér corona bi bi mu ñëwee gis nga lim ci def wutug dund di ko jox jullit yi ñi nga xam dañ leen a entré ci lali hôpital yi mu di leen yët añ ak reer ak ndékk mm-hmm. sëriñ Muntaxa sëriñ Muntaxa ñëpp la jullit yi mm-hmm. moom ay yëfam da koo da koo da koo darale mm-hmm. kon ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ci barkeb Serigne Touba mbënd mi gis nga lim ci jëf génn cinquante millions jàppale ko ñi ci mbënd mi sëñ Muntaxa daal yàlla na ko yàlla bàyyil ci barkeb Serigne Touba ñun loolu rek lañ koy ñaanal jërëjëf lan moo war a mbay sàppar sàppar gi mbay sàppar sàpparal ko daaw ah. suñ borom moom mhm. ah, bu la bëggee dimbali mhm. aw mu fa ma ko def lu leen tàggalee ndax man damaa doon nit koo xam ne damaa yàgg a bëgg a liggéey li may gis ni mhm. lu ne def naa ko ngir tedd formation garde corps def naa ko diplôme yaa ngi nii sama walis ngir bëgg a tedd waaye dara lu ma dara teralu ma lu dul wax lu baax wax lu baax ma ma teral ci laa tabax kër ci laay joxe dépasse ci laay fay courant moo tax ñi nga xam ne yàlla dogal na ñuy wax mm-hmm. na ñuy wax lu rafet mm-hmm. ndax mel na mag nee na ma boo waxee lu bon ban may la mburu mm-hmm. soo waxee lu baax am mburu ak bër te mburu ak bër a daax kon na ñuy wax lu rafet mooy affaire bi sa diggante ki nga xamante ne mooy suñu saali ndigal cuun ci nañu lu bari da ngay topp di wax ci moom loo xamante ay wax yi rafet sa diggante moom lan mooy nekk seen diggante yéen ñaar ndeysaan laaj nga ma loo xam ne lu mat a leeral la Serigne Saliou Ndigal mën naa ne bon gisee benn yoon la mhm. mooy bi ma sëkk kër sëñ Saaliw gi ci Touba mhm. keroog lan mos a gisee te mënu sax juróomi minute benn taalibeem bu naan Abdou mhm. moomoon nuyoole woon ak moom nit ñu bari nag waaw ah, bu gisee ngay nit wax ci nit lu baax mën na noo jàpp ni lu mu lay jox la waaye sëñ Saaliw Cuun mosuñoo tegoo loxo mosumaa jox dara lenn laa ko jàppe muy ndigalu sëriñ Muntaxa lim jëfe te ñun amuñu ku dul sëriñ Muntaxa koo mën a doon ak loo mën a yor bu la sëriñ Muntaxa digalee defoo ko ñun mën nañ laa suur ba keroog àddunay tukki sëriñ Saliou ndigal cuun nag ku ne xam na ni way juróom Cheikh Béthio moo ni woon su ma faatoo nan ma denc madinatu salaam loolu ku ne dégg na ko mm-hmm. waaye ba mu wàccee liggéey sëriñ Muntaxa moo wax ni nan ma ko indil Tuubaa Serigne Saliou Thioune ndigal boole ci pëstef bu rëy boo xam ne daan ko koy indil Touba mm. te Cheikh Béthio daan naa ko dégg mu naan képp ku fi nekkal sëriñ Touba bu leen digalee na ngeen def bu leen teree na ngeen bàyyi mm. Serigne Mountakha nag mooy xalifa général de Mouride mu digal ko ndigal lu rëy loolu mu mënoon a doxee nu ko neex mm-hmm. waaye da ko ko indil Touba ñun loolu tax ñu jàpp ko waaye jàppuwuñ ko lum ñuy jox mm. musu jox dara mm-hmm. ay taalibeem mosuñ ñoo jox dara na leer dëgg la dañ ko jàpp ngir sëñ tubaa ndax ñun sëñ tubaa la ñu wër te moom lañ bëgg sëñ tubaa lañ gëm mhm. man kër sëñ fàllu laay siyaar kër sëñ fàllu mhm. sëriñ abdu mbàkke moom sëriñ saalib moom sëñ fàllu mooy sama sëriñ sëñ Saliou Thioune ndigal du sama sëriñ dama ko bëgg te yàlla tax dëgg la ak ndigalu sëriñ Tuubaa li ko sëriñ Muntaxaa digal mu def ko lii laa ko bëggee mhm. ma bëgg mu leer nañ ci ñëpp dëgg la nii rek la dem dëgg mhm. jamono xaw na metti dund gi seer na loolu mbay jimbo ceeb suukar suukar sax amatu doo ko gis waaw loolu tey nan la nar a def ak suñu diggante ak li nga xamante ne tey mooy màggal gi mbaa du am yenn benn gàllankoor dund gi seer na mhm. torop dëgg la maanaam dam wax naa ko ci benn vidéo am na ñoo xam daan toog roog bés béton seen lépp fekk si leen mais am na ñoo xam ne bu ndekkee mhm. yaakaaru añ bu nu añee yaakaarun reer mhm. nan gestu askan wi ndax jamono ji ñu génn muy corona lu ne jaar fi mhm. yokku ak njëg amu ci aw yoon naan waxante dëgg te yàlla tax ñun askan wee ñu ñor ñun faralu nu ma sàmba faralu nu ma demba yaa ngi dégg li fi nekk nanu koy wax keroog maa ngi wax yi du ñu wax benn information bu nu amal njariñ ay diw ëmbal nañ ko diw jàpp nañ ko diw yooyu amaluñu intérêt dund gii de seer di yokk nañ ci wax ndax ñu wàññi ko loolu moo nu ñor waaw xamoo nit moom koo xam ni boo fetta soo sa lépp ñëw mm-hmm. bu neexee jàpp ni lépp baax na mais lépp baaxut waaye lépp bonitit nag mm-hmm. nan xool li bon ñu boole kook li baax defar ko mhm. man lii rekk laa dégg président Macky Sall mhm. na gën a gestu askan wi nit ñi sonn nañ surtout ndaw ñi mhm. senegal ndaw ñi bëgg liggéey fi am mais danoo gisut lu nu liggéey da ngay gis ku segg kafeem di jaay boo jaaree fii ci ci ci ci télé bi léegi nga gis ay xale yu gàdd ay ay lu ne di jaay ay tàndarmaak ay ndaamara lépp ngir bëgg a tedd kon bëgg nañu liggéey dañoo gisul lu ñu liggéey nan jàppale ndaw ñu liggéey. loolu laay duggee foofu. Mhm. Mhm. dëgg la euh, li nga wax am na solo trop nan nga gisee jamono ji li nga xamante ne réseaux sociaux yi yàqante yeeg waxante yu bon yeeg yu ñaaw yi. maanaam daal Serigne bay Jaxate dani mhm. bàyyil ayib yi la nga yër te yër say ayib. ayib judul sa ayib jooju ayib du la lor. ayib judul sa ayib jooju ayib du la lor kuy def ayib jooju tudd ko bu yàggee nga ayib. ñi na waxante yu baax yi te bàyyi yu bon yi nan ko bàyyi sunu borom sunu borom mooy siise mhm. kenn mën da yóbbu kenn sawara sunu borom mooy siise mais nit man na damaa naan sàngara tey romb la nga ne xoola mbay naan sàngara bay liis am nga bàkkaar woo ma ni ma mbaykat bu ma sañoon ngay doxe nii ngay doxe naan loolu mooy nit mais nan bàyyi yàqante bi lu ñaaw la loo xam ne képp ku koy def maanaam nit kuy dox nag nga xam ne feebarut faatuwut lu ne mën ne ko def mais bis boo feebaroo ak taab képp bu la daloon nga dellu suñu borom te xam ne suñu borom rek a dëgg nit ñi nan moytandiku ak tooñ ñuy def yu ñaaw yi ci internet bi nan ko moytandiku ndax yaanu yaa war a wax yaanu saf bu mu la tax wax loo xamut parce que image dafa doy waar man ngaa def image yaakaar ni jeex na sa doom dem jàng école ñu génnal ko vidéo bi ne ko sa papa dee fi defoon lii wala sa yaay moo fi defoon lii mhm. loolu lu matam mooy tandi ko yóbbu sa doom ak xeex bu dul jeex dëgg la loolu baaxut mhm. ñuy wane seen awra yi ci internet bi nan ko bàyyi mhm. ndax marchandise moo xam ne dafa war a nëbb jar bu <laughs> génnee dootul jar nan bàyyi seen yi te réglé loolu amul njariñ jërëjëf Euh, mbay sa damay jóge rek dugg ci li nga xamante ne tey mooy sa diggante li nga xam mooy lutteurs yi mooy mbër yi mhm. gis naa sa diggante ñoom euh, mu xam naa ne say xarit lañu mhm. ñoom ñëpp say waay lañ parce que ak yow lu bare bare bare xanaa ren nga invité leen ñu ñëw fële sa kër fekk la fa nga dalal leen déet man man maa dalal leen mbër de ah, <laughs> mbër yi leen lekk man ma leen dalal de ah. na leer abu na leer ah doo dalal mbër yi maa ngi siyaare baax na ak sama xarit Balla Gaye waaw di ko jaale ko jaale way juram woo wàcc yi muy duubal lees mhm. muy way jur bu baax ndax keroog li ñu ko seeral rek mhm. doy na sëkk ndax wax nañ ne ko mënoon suuf yàlla ku mënoon suuf mhm. yàlla ku mënoon a dimbali néew ji doole yi kon ñoo koy ñaanal yàlla na suuf woyof ci kawam te njaboot gi fi bàyyi sunu borom teg ci ñoom loxo ba dun ci am lenn lu leen di naxari mm-hmm. ndax dogalab suñu borom mm-hmm. ma mm. kon magal gi maam façon yéene dalal dalalu may mbër <laughs> doo dalal mbëri dal non dama am ak ñoom pelañaa nu ma leen dalale <laughs> xaa di nga dalal liir wala dafaat kenn liiru jaat nag moom fan yi moom moytuwul waaw fan yi moom gis naa yi ñaan yi tëkkante bu metti ndax démb gis naa ko muy dof dof lu di mel ni dof bu jéggib liggéey <laughs> nee naa ko maanaam man fop xajuma ci kawam moom mm. moom gayndeeg mairie la day ngaa ŋàpp tadu mat moom day nappaate du dara dëgg la ñu lay suivre ah mhm. fii si Dakar Midi ah ak tamit lan ngay wax tamit ñaaxaat chauffeur si ci màggal gi daw ndànk xam nga parce que gis nañ ne si euh, mhm. day bëri ay jéey si diggante li nga mhm. xamante ne tey moo ci màggal gi waaw maa ngi leen di ñaax ndax ñoom samay xarit lan muy chauffeur camion yi muy chauffeur bis yi muy chauffeur Mbàkke Tuubaa yi alors Dakar yi ah, taxi yi ñëpp samay xarit lan waaye ñu gën leen a dolli rek te xam ni mel na mag nee na ma loo daw daw da nga seen loo àggut da nga romb loo moomut kon képp kuy màggal si nga xam ne màggal moo la tax a jóg yoon wi gaaw mooy àgg fa nga jëm mm-hmm. ñu daw ndànk teg si ndànk mm-hmm. dawale kotub sëriñ fàllu ba mm-hmm. nit ki jàkk bu ne tacc nga ne teg bu ne yay nga ne yow kon daal code boobu rek laa leen di jox ñu àgg ceeg jàmm def ko jàmm te lépp lu ci ñaan sunu borom nangul ñu ko ci barke seexul xadim maa ngi siyaar ne këri diine yëpp. ndax man Serigne Touba lay siyaar. waaye nag damaa jox war ma këri diine yëpp. maa ngi siyaare képp koo xam ne mën ngaa sol saw dàll te lislaam rekk tax. Mhm. maa ngi lay siyaare. Mhm. di la jox sa wàccuwaay bi la yàlla jox. Mhm. jërëjëf waaw jërëjëf mbokk internet Dakar Midi naan leen demee saa su tey ñu invité ki nga xam ne Mbaye Sapar Sapar si nga kàddu yi nga xamante ne tey waxtaan nañ ko fii kàddu yi am solo la waaw Mbaye fan doo dégg bi ñaan moo ñooñu danoo dof <laughs> waaye bis bu leen mawti nuyoo ñu xam ne mawti fawut foluwut nan bàyyi seen caaxaan yi. Mhm. ba nga ko déggee mu la def. maanaam wax naa ji danoo way ba amatul woon way. Mhm. way nan mbëggeel mbëggeel moom da leen a porté laa yaakaar ne leen bu ma tuddati. <laughs> wala nga way diw samay noon laa fi mu ne Sénégal wutal seen bopp ay noon. ku bëgg challenge il faut nga way ay noon. nga gis jigéen ñi tàmbali ko ak góor ñi. di ko kii di ko monter naan samay noon yooyu amul nit bu mu dal boppam ay noon mm. loolu amul njëriñ mm. baaxut mm. kon yooyu ay mawti xamal ñi ngay yóbboog yooyu du way dara dana ko teg suuf amul njëriñ na ne way lu am njëriñ sëriñ euh, Njaga Mbay mm-hmm. ba léegi awayam day mel ni tay la ko way day mel ni tay la ko way way yu ma ci gën a marqué nag mën a gumaa ñi béeg li ma yor fekk njaboot ga toog di la nekk ba mu la dal nawal li nga yor te dellu ca kër gay defaree loolu tukkikat yi la ko may ndax tukkikat yi da nga gis léeg-léeg ku lañ ci àll ndax li mu fekk senegal waaw ndax jàmbaar dawut dafa wuti doole ay Sénégal dafa metti ba da nga tukki ñëw sax ñu ne ah daa ñàkk jom de te ñàkkut jom ku doon may sa bopp doo génn réew mi kon maa ngi leen di siyaare ñoom itam waa diaspora bi ñëpp di leen ñaanal képp koo xam ne génn nga daal li nga bëgg yàlla na su sunu borom defal ci barke Serigne Touba amiin